sant rek ah waaw di sant ñëpp di ma àndal surtout ñi ma àndal di sant ñi xam ñoo ci jàpp ñëpp parce que je pense bi mooy quatrième année bi ñu koy def fii donc suñu doole ñun kese mënu ko dëgg la bi ñu koy soog a def ñun kese la mais gars bu ñu la gisee nga nekk ci lu baax dafa am ñu baax ñoo xam dañuy ñëw bëgg ci jàpp donc di sant ñëpp quoi sant ñëpp Albert waaye première année bi lañ ko def balaa ñu fi génn di dem bi ñuy def don yi di wër ci saal yi balaa ñu fi génn di dem ñu ñëw fii ñu jox ñu raaya ne ñu yéenay ambassadeur hôpital bi donc tey jii mënatuñ koo bañ kon chaque année ñu ñëw parce que tamit ay suñuy doom ak suñuy rak ak suñuy neveu ñoom ñoo fi nekk donc moom moo tax chaque fois ñu def choix bi ci hôpital Albert Royer ñeneen nit ñu mel ni Aba peut-être am dayo bi Aba am jotul na conseil leen peut être ñoom ñu ngi xool peut être dafa am ñoo xam dañ koy def abaa day ànd ak ay partenaire am ànd ak ay nitam bu koy def faaw ñu koy wane pour ñu xool pour que ñeneen ñi nga xam tamit bëgg nañ ko mën ko te xamuñu fu ñu defee ñu mën leen ko wanaale mais am na ñoo xam tamit koy def ci ko donc koo xam ne rek yaa ngi koy def ci suuf bu dee mën na fës ni euh, faaw ñu xool xam ni ñun am nañ lii bëgg nañ ko def mais fan nañu dem pour def ko faaw ñu leen koy wan donc ñi nga xam ne am nañ ko tamit te ñoom ñu ko def faaw ñu koy def dem ci hôpitaux yi dem ci prison yeeg ci armée yi parce que am na ñoo xam ni am nañu soxla yu mel ni am nañu feebar am ñu lu ñu fajoo am ñu jëndee ordonnance am ñu lu ñu defee seen ay soins donc ñëw seet leen indi yoo xam dañ koy soxla c'est très important. Euh, am doom xam nga am li ci xam li nekk ci am doom mu feebar bu la nee papa yëpp mën naa tukki donc nga gis fi nekk nañ fi trois quatre mois ba six mois donc loolu bu dee da ngay nit euh, faw sa xol am lu mu laaj ko surtout am na si koo xam ne li ko abaa di jox sax peut être euh, lu am lu mu koy apporter mais gis jëmmi abaa tout naa benn geste bu bu benn malade def mooy woo tos bu kott ko mhm. loolu aussi am na lu muy def ci malade yi est loolu mooy li a ah. tey jii loo yi leen indil ak doo yi ci benn fan lañ mu jeex wala ñaari fan mais tey dina am malade boo xam ne bu gisee benn ñamaxit mbay wala tos wala abaa genre dina koy fàttaliku tey ñun daaw bi ñu fi ñëwee woon am na malade yoo xam ne ñoo lañ jox ñu lekk ñu ñëwee lañ nangu toog

partenaires yo xam dañuy gunge xam nga ku né partenaire né visibilité wone limi def non non non maa ngi ñew ci yow ma ngi ñew ci yow maa ngi lay wax tamit di la wax ni la amna ño xamni xam am nañ ko bëgg nañ ko def mais xamuñu fa lañ ko défé Sénégal booy julli nga japp ba sét taxawal di julli sax ñu né ki day wanewu donc li ñuy bëgg lépp lay def nga koy nëbbat alors que nit ñi faaw ñuy gis nit ñi def pour buñ déwé ñu mën ñoo sédé sinon boo bàyyi sa bopp nit ñi duñu seede lu baax te ñun ci li ñuy nekk ay fi ak caaxaan dafa xaw a bëri lépp dañ leen koy wan kenn du wax donc bu ñu leen wan lu baax nañ ko jël ñu consommé ko comme ni ñu leen wanee ambiance beeg fën beeg yooyu lii sax jàkkaay man lii sax foog naa moom la war a di wane moo tax ñi critiqué moom da leen bàyyi rek ñi critiqué waaw ñun ñuy connait def après hôpital mhm. dem ay yëmbal donc war nañu dem yëmbal je pense que le vingt sept dañuy dem yëmbal le trois ñu ngi euh, fi nga xam ni moom euh, prison bi le six ñu gi ci rond point ñu ci station Shell bi nekk Espoir donc waaw waaw ni ñu koy defee chaque année. ñu ngi suñu abaa ñi àndal ñëpp am nañu def. ñaan ci cëri bi kan awa aw ba ah. aw man ko tey ah, ñëpp waxoon nañ ko non coow moom indi bu coow amoon sax du ma ko waxee ci hôpital bi coow bu amoon sax dañuy bàyyi ba ñu génn fee mais duñ ci wax ci bi coow bàyyi ba génn ñu coow waaw ah. aw kon am coow noonu nga <laughs> <laughs> politique ay da ngeen dem campagne <laughs> ñoom ñëpp ñoom ñëpp campagne ñëpp xam nañ ñun euh, waa réew mi lañ ñun ay doomi réew mi lañ fépp lañ far donc ñun passé nañ fi ñu faralee kii wala kër kër goo dugg nga fëgg fekk fa ko xam day sentir aba wala mu koy enjoy donc même bu dee nit kese laa comme yéen genre am na yoo xam ne man mënu ma ko di ko wan kenn sénégalais laa man Sénégal laa faral ki gën ci réew mi ki nga xam ne buñ ko dénkee réew mi mu yóbbu ko ci kanam yal na ko fi yàlla teg ñuy sant rek ah ah di sant ñëpp di sant ñi ma àndal surtout ñi ma àndal di sant ñi xam ne ñoo ci jàpp ñëpp parce que je pense bi mooy quatrième année bi ñu koy def fii donc suñu doole ñun kese mënu ko dëgg la bi ñu koy soog a def ñun gisee nga nekk ci lu baax dafa am ñu baax ñoo xam dañuy ñëw bëgg ci jàpp donc di sant ñëpp quoi sant ñëpp waaw Albert waaye première année bi lañ ko def balaa ñu fi génn di dem bi ñuy def don yi di wër ci saali balaa ñu fi génn di dem ñu ñëw fii ñu jox ñu raaya ni ñu yéene ambassadeur hôpital bi donc tey jii mënatuñ koo bañ koon chaque année ñu ñëw parce que tamit ay suñuy doom ak suñuy rakk ak suñuy ndëba ñoom ñoo fi nekk donc moom moo tax chaque fois ñu def choix bi ci hôpital Albert Royer. ñeneen nit ñu mel ni Aba peut-être am dayo bi Aba am. jotuñu conseillé leen ñu dugg ci social bi ak yow mois ñoom ñu ngi xool naa dafa am ñoo xam dañ koy def abaa day ànd ak ay partenaire ànd ak ay nitam bu koy def faaw ñu koy wane pour ñu xool pour que ñeneen ñi nga xam tamit bëgg nañ ko mën ko te xamuñu fu ñu koy defee ñu mën leen ko wanaale mais am na ñoo xam tamit ñu ngi koy def ci suuf te kenn yëgu ko donc koo xam ne rek yaa ngi koy def ci suuf bu dee mën na fës parce que am na ñoo xam ni euh, faaw ñu xool xam ni ñun am nañ lii bëgg nañ ko def mais fan nañuy dem pour def ko faaw ñu leen koy wan donc ñi nga xam ne am nañ ko tamit te ñoom duñ ko def faaw ñu koy def dem ci hôpitaux yi dem ci prison yeeg ci armée yi parce que am na ñoo xam ni am nañu soxla yu mel ni am nañu feebar am ñu lu ñu fajoo am ñu jëndee ordonnance am ñu lu ñu defee seen ay soins donc ñëw seet leen indi leen yoo xam dañ koy soxla c'est très important. am doom xam nga am ni ci xam li nekk ci am doom mu feebar bu la nee papa sama lii day métti sa àdduna yëpp xam ne moom doomam nekk nañ fi trois quatre mois ba six mois. donc loolu bu dee da ngay nit euh, faaw sa xol am lu mu laaj ko surtout am na ci koo xam ne li ko Abba di jox sax peut euh, lu mu koy apporter mais gis jëmmi Abba tout gis naa benn geste bu bu bu benn malade def mooy woo ko mhm. loolu aussi am na lu muy def ci malade yi est-ce a mooy li gën a important ah tey jii loo yi leen indil ak doo yi leen indi ci benn fan lañ ci lekk mu jeex wala ñaari fan mais tey dina am malade boo xam ne bu gisee benn ñamaxit mbay wala tos wala Abba genre dina koy fàttaliku tey ñun daaw bi ñu fi ñëwoon am na malade yoo xam ne ñoo leen jox ñu lekk biñ ñëwee lañ nangu toog sen papa yeeg sen yaay nañu do lañu dimbali ci moment bi ngeen fi nekkee ngeen jox leen ñu jox leen ñu lekk ñu lekk donc loolu mo gën a important le fait que ñu lay gis yow mi nga xamni ci via plateforme yi wala ci télé bi lañ lay gis ñu gis la ni de vive voix donc euh, loolu rek ça fait plaisir quoi. quand on critique les social qui sont filmées euh, yo xam ne dafa jot tax ñu daf ci nekk leneen mo nekk ci ginaaw yeen est ce que loolu maa ngi la koy wax léegi sama commencement wax xamna naa ne yaa ma déggul la yeen say dañ ci ànd ak partenaires yoo xam dañuy ñuy gunge xam nga ku ne partenaire ne visibilité wane li muy def non non maa ngi ñëw ci yow maa ngi ñëw ci yow maa ngi lay wax tamit di la wax ni la am na ñoo xam ne am nañ ko bëgg nañ ko def mais xamuñu fa lañ ko defee Sénégal booy julli nga jàpp ba seet taxawal di julli sax ñu ne kii day wanewu donc li ñuy bëgg lépp looy def nga koy nëbbati alors que nit ñi faaw ñuy gis nit ñi def pour buñ ñu deewee ñu mën ñoo seede sinon boo bàyyi sa bopp nit ñi

prison bi le six ñu ngi ci rond point ñu ngi ci station Shell bi nekk Ouest Foire donc waaw waaw ni ñu koy defee chaque année. ñun suñu abaa ñi muy àndal ñëpp am nañu def. ñaan cëri bi kan. waaw aw ba aw man gisuma ko tey. coow ñëpp waxoon nañ ko non coow moom indi bu coow amoon sax dama ko waxee ci hôpital bi. coow bu amoon sax dañuy bàyyi ba ñu génn fee mais duñ ci wax ci hôpital bi coow. ñu bàyyi ba génn ñu coow. waaw aw kon kon kon politique ay da ngeen def campagne <laughs> ñun ñoom ñëpp ñoom ñëpp campagne ñëpp xam nga ñun euh, waa réew mi lañ ñun ay doomi réew mi lañ fépp lañ far donc ñun passé nañ fi ñu faralee kii wala kër kër goo dugg nga fëgg fekk fa koo xam ne day sentir aba wala mu koy enjoy donc même bu dee nit kese laa comme yéen genre am na yoo xam ne man mënu ma ko di ko wan kenn sénégalais laa man Sénégal laa faral ki gën ci réew mi ki nga xam ne buñ ko dénkee réew mi mu yóbbu ko ci kanam yal na ko fi yàlla teg